mbokki internet yu DKR 221 dal leen ak jàmm ñu dikk ak yéen ci li gën a fës ci xibaar yi daal di waxtaanee dossier Sweet Beauté coow li dox ci diggante Adji Sarr Sonko Cecile Tembe nag ab requête de non-lieu moom la avocat yi di sàkku ci coowal Adji Sarr Ousmane Sonko ginnaaw avocat yi nga xamante ne nag ñoom ñooy laajil Ousmane Sonko ñoom nag daal di nañuy déposé benn requête ngir daal di am ab non-lieu bu ñu sukkandikoo ci doyen des juges moom nag daal di nay clôturer information bi nga xamante Sweet Beauté ginnaaw Ousmane Sonko mi nga xamante ne nag daal koy inculpé ci wàllum viol ak menace de mort ki ko def nag du kenn ku dul ki nga xamante ne moom moo di Adji Sarr ca waxtu boobee nag avocat yu njiital Pastef les patriotes ñoom nag ñu ngay xamal ne lii ab complot la waral na nag ba jamono ji ñu daal di déposé li nga xamante ne nag moom moo di ab observation ci mardi tey gile observation boo xamante ne nag daal dinañ ciy dugal ab requête boo xamante ne ab non lieu lañ ciy daal di sàkku ngir seenu client ba ba tey bu ñu sukkandikoo ci ay xibaar juge bi nag daal dina statué wu ci demande boobee ginnaaw convocation yi nga xamante ne amaloon na ko ci lenn ci ñoo xamante ne nag mënees nañ leen a woowee ay témoin ci mbir mi wala rek kenn ku ci nekk ñu bëggoon cee déglu sa version ba ku ci mel ni ki nga xamante ne nag moom moo di capitaine Touré Baye Mbaye MC Sidi Ahmed Mbaye Ndeye Khady Ndiaye ak borom këram madame Tall ak ñeneen ñi nga xamante ne woowoon nañ leen ci dossier boobee doon leen déglu ginnaaw bi loolee ne moom moo di maître Dior Diagne kenn déglu ko ci waaye tamit kii di maître Pape Sow moom tamit kenn déglu ko ci ginnaaw communiqué ci dossier boobee nga xamante ne parquet ba nag jamono jile daal dina ci pare te délai fukki fan ak juróom rek la daal di am ngir daal di transmettre réquisitoire boobee jàpp leen ni Ousmane Sonko ñu ngi ko déglu ñetti fan ci weeru novembre ci atum 2022 waaye nag confrontation dossier boobee nag jàpp leen ne la cay kompaloo ay Ousmane Ousmane Sonko ak ña koy layyil daal di nañu koy génnee daal di koy wax la nga xamante tamit Adji xam na ko la nga xam ne Adji Sarr tamit xam na ko yëkkati na ko tamit daal di koy wax mu daal di nekk mbiijoo ak mbaaloo ci kaw Ousmane Sonko jamono jëlee nag juge ba ñam doon déglu ñëpp daal di na cee noppi li ci des rek mooy dossier boobee ñu daal di koy clôturer daal di cee def ab non-lieu jamono jëlee nag li ci des dossier boobee nag daal di koy yóbbu fa nga xamante non-lieu lu mu ci mën a doon rek jamono jile nag liñ naan la bal est dans le camp du doigt et des juges moom nag moo xool bal ba mooy xool ana naka la koy centré ak fan la koy tekk waaye sa si tempe ña ca waroon a déglu ñëpp ña ca ëpp déglu nañ leen ba mu des ñaari doomu aadama muy maître Pape ak ki nga xamante ne moom moo di maître Dior Diagne Abonnez-vous sur votre chaîne YouTube DKR et n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche pour recevoir les